waaw ah, mesures yi ñu jël euh, comme ni ma ko waxee léegi ni am na ci am solo gannaaw wàllu transport bi parce que transport bi moom wax nañ léegi danañ ko ubbi comme euh, neex dem ba 23h am na heure boo xam ne bii gare routière danañ ko tëj ministre de des transports dana ci waxtaan ak acteurs yi mu des également yeneen activités yoo xam ne yii dañ ko tere woon muy conséquence au rassemblement yi ñu tere woon donc restaurant yi dana leen permettre ñu ubbi waaye restaurant yi du mel na aussi waaye danañ reprise progressive maanaam euh, danañ permettre distanciation bi ñu que nit ñi a euh, ci biir ci yi restaurant donc dana a indi peut-être nit ñu li ci am solo mooy restaurant yi dana condition d'accord de Dakar surtout parce que am samedi passé man préfet mu ko ak bi mu ko defee ak ñoom ci rencontre bi ci lañ waxtaan juboo nañ ci liñ juboo ci kàddu mooy na nit ñi ci bi taabal yi wala ci restaurant yi s'orienté maanaam s'orienté distanciation bi ñuy wax nañu fexe ba restaurant bi carte yi nga xam ne dañ ko daan teg boo ñëwee commande boo paree bàyyi ko fi keneen ñëw commandé loolu aussi bëgg nañ ko dindi ñoom ñuy def commande électronique comme ça dina mën a permettre kenn du lal bagage yo xamni ni da nga ko fekk fofu ci benn table wax nañ également ci biir euh, restaurant yi am na yoo xam ne dafay bërëb yu souvent ci ñi tàmm dem restaurant nit ñi dañ fay daje muy buffet yi loolu aussi wax na nañ xool nu ñu koy organiser comme ça nit ñi di éviter di daje ci ci bërëb yu mel noonu waaye nag dama bëgg a préciser aussi que d'accord boobu ñoom ñu d'accord d'accord nañ aussi que ne baar yi bokkuñ ci

sanction yi moom depuis loi la boo xam ne bii mi ngi fi wala texte yoo xam ne ñu ngi fi depuis 1965 donc koo xamee ne kii am na ay texte maanaam ay décret ay arrêté yi ñu teg te respecté wuloo ko am na daan bu la yoon teg

booy dugg ci transport war nga xalaat yor sa masque bu fekkee da ngay dem marché war nga xalaat yor sa masque donc kenn ku ci nekk booy dem ci lieu public wala privé di fa dajeeg ay nit na sa xel dem ci sa masque ba ci sa biir oto boo ci nekk ak nit war nga yor sa biir masque